bundu kër Modou Lo ambiance bi takk der yi xañ nañ leen ko sinon kon fii la ñëw voilà mu ngi noonu mu ngi noonu yéen a ngi en actuellement ambiance bi gis ngeen ko noonu kër Siteu kër Modou Lo man maa ngi juum rek kër Modou xarañ loo moo jëlati ndam li comme ni ma leen ko waxee woon yéen mbokku internet yi dañ leen di toppal lamb ji avant le combat et après le combat mu ngi noonu donc victoire pour Modou Xarañ loo actuellement ni parcelle mu ngi fees waaye dispositif sécuritaire bi moo tax mënuñu agsi fii pour ambiance bi kon Modou Lo jëlaat na li nga xamante ne ji voilà mu ngi noonu toujours noonu la ko waxee woon roi bi dama koy yor ba doyal jox ko ndawal parcelle mu wéyal kon mu ngi noonu kon làmb ji ni la mënoon jeexee. mu ngi noonu mbokku internet yi voilà dégg loolu dañoo combine commentaire yi tàmbale nee na dañoo combine Fada combine Siteu mooy jàmbaar Modou di jàmbaar mu ngi noonu waaye fële nga xamante ne ji moo di waaw mu ngi noonu gis ngeen noonu ambiance ba ngeen gis noonu ci mbedd mi takk der yi ñoo taxaw foofu xañ supporter yi ñu agsi bundu kër Modou xarañ loo waaye kon fii fees na lépp xoolal ma sama yaay booy bi sama yaay booy bi moom ndeysaan kontaan na sama yaay booy baa ngi noonu mu ngi noonu ñu ngi noonu instant bi waa kër gaa ngi jubilé waa kër gaa ngi jubilé waaye nag waa kër gi dafa mel ni ni Modou Lo amee euh, ndam li neexu leen ñoom dañoo bëggoon ñu duma ko daan ko ndax mi ngi noonu sama yaay boobi yaram bi tàng na ndeysaan xoolal ma sama yaay boobi yaram bi tàng na waaw mu noonu xoolal sama yaay booy bi yaay booy bi yaram bi tàng ay yaay booy bi yaram bi tàng na yaram bi tàng mu ngi noonu ambiance bi commencé na mu ngi noonu pétal yaa ngi ci kaw pétal yaa ngi ci kaw si police yi ñoo ñoo tax supporter yi ak si wuñ yi ñoo si si loolu la mu ngi noonu yéen a ngi en direct actuellement connexion bi nag mooy xaw a tagga mu ngi noonu gis ngeen ko noonu ci image yi xolama ñu ngi ambiance ñoo ngi ambiance ñu ngi ambiance. lii moo am Parcelles Assainies lii moo fi am. mystique la. mystique la. mystique la sarax am na ci. mystique la ñoom ñaar dañu xam tolloo doole mystique. combat bi gis na ni mais Modou Lo daan na bëre na bëre lu gën dafay bëre xale bu xaw xajam te ci biir combat bi ah, ah. avantage bi nga xamante ni surtout dafa am mooy rallonge am ah, atu bi nga xamante ne am na ko ci kaw Modou Lo mooy gauche bi nga xamante ni buy ñëw day gaaw moom surtout lu ci mën xaw wane na jàmbaar wane na fulla wane na fayda ku mel ne Modou Lo yi ko ñoome barewul nga yegg ak moom fi nga yegg ak moom kër Modou Lo mu ngi noonu ambiance baa ngi noonu police ñu ngi dolli ñu ngi renforcer ñu ngi renforcer dañuy ñu ngi renforcer mu ngi noonu day mu ngi noonu gis nga noonu mu ngi noonu en mu ngi noonu yéen a ngi andi rek. mu ngi noonu mbokku internet yi. oh, oh connexion bi. da ci am solo comme di wax da ci am solo. waaye combat bi. xaw a mocc ndig yi tuuti. mu doon combat boo xamante ni. bu doy waar. doy na waar trop. doy na waar Siteu. démérité wul. wane na ni. Yelmine bi ñu koy woowee. da ko mérité. combat bi gis. gis ni Siteu entraîné na. Ah. indi na doole. indi na doole Siteu ñëw na dëggal bopp. te lu kenn yaakaarutoon moom lañ gis ci Siteu. muy yóbbu Modou xarañ loo. Ardo yóbbu na ko ñaari yoon. te li ci gën a garaaw mooy ah. stratégie. Ah. bi nga xamante ni moom la bëree. bëgguloon Modou Lo jàpp ka benn yoon. bëggu ko mais loolu loolu tegtal la. loolu tegtal la. bëgguloon Modou Lo jàpp ka benn yoon. sa copain ngoog. xam na ne bu ko Modou jàppee mu jeex. papa sa copain ma ngay bakk sa copain bu ko ragal la. Papa yaay booy bi. en tout cas. fii parcelle ñu ngi jubilé. parcelle ñu ngi jubilé. waaye li fi am nii mosu fi am. li fi am nii mosu fi am. mu ngi noonu. donc gis nga ko noonu en xoolal ma li ci suuf xoola ma li ci suuf xoola ma li ci suuf waa kii moom lii moom lu mu doon tëdd na ci suuf tëdd na ci suuf mu ngi noonu tëdd na ci suuf sa waay dafa kontaan wala day nelaw dafa kontaan wala day nelaw lambal baat ba lamb ko ndax mu ngi nooy yaa jóg na a jóg na a jóg jóg na jóg na ñu koy xool mu ngay nooy mu ngay nooy mu ngay nooy jóg na jóg na mu ngay nooy mu ngay nooy a jóg na jóg na jóg na mu ngi noonu jóg na voilà ba tey mu ngi noonu mais nag parcelle dafa mel ni ni ñu amee ndam li neexu leen parce que doon na am ambiance lu gën a demee nii